di sant mboolem ahlu rijaal gépp ñi réew mi ak ñi bitim réew ñëpp ñi nga xam ne ñoo séq kër sëñ rijaal ñuy wut sëñ rijaal ci ñoom ñoo ngi boole ñëpp ay cant di boole ñëpp ay ngërëm di dollee sant it kilifa yi nga xam ne saa su nekk ñooy ànd ak yéen ci liggéey bi di ca jiital sëriñ Cheikh Fatim mi di ci jiital teg sëñ saam ak sëriñ Cheikh Ami sëñ Cheikh Magay di ci Cheikh Moussa ak sëriñ Amdi Ram ak rakkam yëpp ñoo ngi leen sant bu baax ci doxin wi leen sant ci jëf ji di leen sant ci pas-pas bi waaye nag tey moom li ma gën a sant mooy gëléem yi yës fii da nga xam ne sama wëllëray bopp yi rek ay sama wëllëra defu ko ab taal bi defu ko sama rakki bopp yi ñoo ko def di sëriñ Cheikh Fatim di sëriñ Saam di sëriñ Cheikh Lamine loolu doon lu rëy ci man ndax damaa sawar lool ci daje yéen di jëf aw yiw sawar lool ci daje yéen di lëggéeyal sëñ Rijaal sawar lool ci daje yéen di lëggeel sëriñ Touba ndax xam seen pas-pas ak seenu yi waaye nag ñun dañoo war a sant bu baax cant nga war a jëkk ci ñun mooy amatul nattable ni suñ diggante sëriñ Jiraan ak sëriñ Touba sëriñ Jaar day yoon wi fi nekk xàll na ko ba mu leer nañ ñi amul pakk amul ci dëkk amul gàllankoor ku bëgg a dox te am yéeney dox te am pas-pasu dox foo bëgg a yegg da nga fa yegg lu des rek ci sa pas nan xam ne ni sëriñ bi ku jant bi tiim kuy dox ci kaw suuf si ku nekk sa jëmmi bopp ji war nga cee njukkal sëriñ Tuubaa ca jéego yi ngay dox ca jëf ya ngay jëf ca wax ya ngay wax ndax ëllëg pencum yàlla ma day ku dem noonu la noo defa xaalis mu ne amuloo wax doo amul ay noonu nag ndokk ba nu sëñ bi jàll layalee bu yàgg kon la ca des mooy jëf ji rek jëf nañ dollee fonk jëf ji bu baax a baax a baax a baax ni ko sëriñ si waxee rek liggéey bii làmmiñ sëñ Tuubaa noppub sëñ Rijaal liggéeyloo bu liggéey wóorloo woon ko dañ koy liggéeyloo loolu waxees na ko ba tàyyi waxees ko ba tàyyi waxees ko ba tàyyi waaye nag du wax ju ma ta waye xol ndax wax ju la kon noonu nan xam ni waruñoo desal dara dara dara dara dara dara ci suñu bopp waruñoo desal dara dara dara ci suñu pas-pas lépp dañ koo war a jëme ci lëggéey sëriñ bi rek ndax loolu de moom la waajur yi séentu ci ñoom loolu de moom la waajur yi yaakaar ci ñoom loolu it mooy mooy li nga xam ne moo ne may ndam ci suñu dund kon ndokk nag ba ngeen ko xamee noonu yéen ñëpp sëriñ Cheikh nga xam ne koo ci seen ku nekk bu ndigal jotee gisatul boppam ndigal rek lay lay gis lu mu am def ca lu mu xam wax ca nu mu mën a doxe ca ba kër muy sotti foofee ngeen nekk nag ñu ngi ñaan sëriñ Touba ak sëriñ Rijal taxawu leen taxawu say leen baat féete leen fu fépp te féete ko ñëpp liggéey bii ñuy liggéeyal sëriñ bi képp ku koy dégg mu neex la. baa képp ku ne ci biir te am ci pas-pas wala ku muy romb sa xol sedd ci ku ne noo ngi ñaan ci baaxub Sëriñ Tuubaa goog bu yaatu boobee ka jëkk a jébbalu ba ka mujj jébbalu mu ne du am buñ ci ëpp kenn tawféex buñ ci ëpp kenn aw yiw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu